pas noonu la en fait euh, peut-être sur le plan technique. Euh, les techniciens ñoom nañ ci wax. ñun en tant que supporter lu ñu gëm mooy nous sommes champions d'Afrique et on va gagner match. yàlla c'est le mot d'ordre. dañuy ànd wutiwaat ndam li indiwaat ndam li incha allah. mooy li nga wax sànq. Oh, parfaitement man mm. dama kontaan ci analyse yu doyen. Mm-hmm. effectivement bataille psychologique am na. surtout boo dégloo conférence avant match. Mm-hmm. <laughs> di ko li muy wax mu ne le Sénégal a été toujours au-dessus non. excusez-moi le Cameroun a ah, toujours été au-dessus du Sénégal. Ah, loolu c'est de la psychologie. Ah, exactement donc loolu on doit veiller à ça Aliou Cissé doit être avant-gardiste. Mm. joueurs yi mu chargé leen carrément xam nga wax leen loo xamante ni bu ñu duggee si terrain bi du ñu xool ay favori man mm-hmm. les histoires de favori gëwum waaw il faut que ñu enlever manteau favori boobu tegee ko nële parce que loolu dañu sonal favori amatu waaw man loolu laa amoon lu mu ci